Uh-huh. boobule organisation dafay it uh, liggéey bu mucc uh, ayib. boo uh-huh. boole it en tout cas lépp loo xam ne jot na ko liggéey fii Sénégal jiite woon fi li nga xam ne mooy assise nationale. yooyu conseil uh-huh. yooyu nga xam ne kon. amaloon nañ ko fii ci Sénégal bokk na daal ci ñi nga xam ne uh, Afrique citation boobu ñu naan en Afrique quand un vieillard meurt sen une bibliothèque qui brûle. Amadou Mahtar boobu kon da cay da cay da cay bokk. bu demee rek ab bànqaas bu rëy moom moo. nga gis ne moom moo wàcce ci nga xam ne moom mooy euh, Sénégal mhm. histoire Sénégal li nga xam ne mooy patrimoine Sénégal tey jii nga gis ne kon euh, hommage bi ñu ko nar a c'est le niveau international. Mhm. waaw ñu UNESCO moo koy amal ñu Paris. fa nga xam ne fa la siège bu UNESCO. Mhm. Euh, nekk ci li nga xam ne moom mooy hommage boobu. di encore une fois rendre nga xam ne moom mooy Amadou Mahtar boobu hommage. dafa bokk ci ay figures yoo xam ne ay nit yoo xam ne. Euh, day bokk ñu ñu tiitaroo quoi dafa bokk ci jox ne maanaam lii euh, mhm. da nga koy tiitaroo boo amee mhm. doom boo xam ne dafay def jaar-jaar bu am solo nga xam du liggéeyal àdduna Sénégal kese mais da ngay gis ne àdduna la liggéeyal moom tamit comme ni ñu ñaanalee ña jiitu rek ñu mhm. koy ñaanal yàlla borom bakkaar mu am yàlla jël ko c'est important ci aljana yu kawe kawe yi soxna c'est important ku mëndoo fen donc ñu ngi fa jëdalewaat euh, suñu njaal en espérant que nag héritage bi nga xamante